waaye kan Karim Wade déposé candidature dem conseil constitutionnel rejeté ko. koo xam te ni yow dóor yoo fayoo demoo di ko. bu taxee ne Amadou Ba dama liquidé politiquement di guerre ay ay kooku ñàkk a respecté justice sénégalaise la te may wax aux hommes politiques c' est l' conseil boobu moo tax ay maire am fi ñu nekk dans l' opposition. moo tax à la limite tuuti benn boo ko yaakaar ñàkk a majorité parce que la sénégalais yi voté muy dëgg la la teg ci bi nit ki li nga bëgg a yor koy respecté. président de la République du président de la République lu sénégalais fonk la président de la République xam nañ ni fu mu doon ko dal mu doon ko am yërmande mu doon ku xam te ni mat na kilifa doon ñoo xam te ay garsa garsa ay cooki cooki fin lañu la ñuy prôné dans pays saa opposition bi ils seront sanctionnés par les sénégalais bu ñuy politique lii problème dëkk bi war nañ jël engagement ñu responsable bi taxaw ne kat boo leen jàppale Amadou falu lii problème dëkk bi Amadou Ba danañ taxaw mu régler ko ci jeunes ci emploi ci formation ci jigéen ñi ci développement li nga xam te infrastructure la Thiès soxla muy lu bëri li nga xam te président dégg na ko ci conseil interministériel bi passé ñaar daf ñu amal solo c'est l'assainissement de